présent, nous donnons la parole à notre député Chersek et notre collègue euh, Tcherno Alassane Sal Merci, Monsieur le Président. monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre des finance et du budget di nuyu monsieur le ministre des institutions euh, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de l'innovation ñu ngi lay félicité waat ci cette confiance renouvelée cela témoigne que fi nga nekkoon muy ministère de l'agriculture def nga fa liggéey bu rafet di nuyu aussi ñi nga àndal ñëpp mais di ci distinguer mon ami et frère Moustapha qui en train de faire un excellent travail au niveau de Bambey, mais également dans toute la région de Djouda. Monsieur le ministre, moi je commencerai par rendre hommage à tous nos anciens présidents de la République. Je commencerai par le professeur Léopold Sédar Senghor. suñu wax jàng ak xam-xam ci Senghor la yam c'est l'homme noir qui apprenait aux Français le français. C'est celui qui a créé l'État et la nation, qui a créé une administration dont le résultat est toujours la Ces hommes qui font d'excellents résultats. Le président Abdiouf, diplômé de la France d'outre-mer, major de sa promotion, bi muy bàyyi réew mi dëkk boo dem amul benn capital départemental bu amul SNHLM amoo SICAP amoo bu bu loué dem na ba ñu tuddee ko monsieur Forage ak madame Moulin di rendre hommage également au président Ablaye Wade il a fait aussi son temps mais nag. wooy wu day am jàppal diw l'homme qui a surplombé tout le monde c'est le président Macky Sall de par ses réalisations defe naa ni président Macky Sall li mu def fii balaa un homme qui a de la vision avoir de la vision nag ca mënoo ko matérialiser du dara mon professeur Corinne Gendron de l'université du Québec à Montréal me disait en citant Joël Beck vision sans vision sans action n'est que rêve et action sans vision nekk que perte de temps mën nga am vision ca doo am action yu ko matérialiser doo am des hommes ici qui lui donnent extrêmement important les institutions yi wax aucun état ne s'est développé avec des économies d'échelle le haut conseil nous en avons besoin parce que c'est la chambre des collectivités territoriales le conseil économique et social nous en avons besoin parce que c'est la réflexion les activistes ne réfléchissent pas ils n'ont pas de cerveau ils ont des à l'attaque qui agissent comme par des criquets C'est pourquoi tout ce qu'ils disent ici ne tient pas la route. Nos universités n'ont rien à envier à n'importe quelle université. Une université qui a produit des professeurs comme ça Baldé, comme Souleymane Bachir Diagne, comme le professeur Souleymane mais qui a produit un président de la République, ingénieur géologue, pétrochimiste, qui est en train aujourd'hui de briller dans toute l'Afrique. xam nga nit koo xam ne nag loo def lu nekk ti 94 milliards Mon ami, arrête de, de parler de ça. Nous avons auditionné toute l'administration. J'étais le président la commission d'enquête. 33 auditions. Vous citez aujourd'hui le règlement intérieur. Vous avez à l'Assemblée nationale. Et vous brandissez aujourd'hui le règlement intérieur. Vous n'êtes pas des républicains. Vous avez dit que Vous avez prôné l'antisystème. Aujourd'hui, même les renvoyés du système, vous les prenez comme vos performants. Qu'est-ce que vous voulez Vous pensez que vous allez continuer à tromper les Sénégalais Vous vous trompez vous-même. Sénégalais yi découvrir nañ leen xam nañ ni yéen ay tappale ak i caxanti gi nekk yow doo wote benn budget da nga naan lii baax na lii baaxul li baax kay wote ko ñu dem seet lu ko dolli mais yow tu es nihiliste permanent loolu joxewul réew te bis nga làmb ji bis bu tëggee ñu sëgg combat bi da nga xam ne ku Macky Sall bokkut ak yéen ci da leen tubaab tëdd les sénégalais vous ont vomi parce que dañu juumoon par contre monsieur le ministre monsieur le ministre des finances je voudrais que vous mettez encore l'accent sur la recherche mais la recherche n'est pas seulement votre ministère l'ISRA c'est la recherche il a son budget l'ITA c'est la recherche le centre national de recherche océanographique COROD c'est la recherche dans tous les ministères la recherche. Il s'agit d'une coordination de l'action gouvernementale et c'est ça la recherche. Mais vous regardez un petit chapitre, xam nga ko jàng alxuraan boo mokkalee Faatiha wala fàllaxeeg naas yi la ci yàlla wax dem ba ci juróom benn fukki sax mu dóor fa leneen lool boo xamul loola doo xam fii da ngay di dem jàngi ca wuti xam-xam. au collègue Diallo Alassane Sall. L'honorable député Pape Djibril Fall se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le ministre Moussa Baldé, je sais en vous un militant engagé pour les causes du développement du Sénégal. C'est certainement cette volonté de participer à la transformation du pays qui vous a fait abandonner votre passion de mathématicien parce que un, un intellectuel authentique, et c'est le reproche qu'on peut faire aux intellectuels de général, préfèrent leur la, la, la des mathématiques à la passion de notre Et vous avez choisi le dur métier de politicien pour ça, je vous sollicite. Et sais que, en vous confiant le département de, de, département de, de, de, de l'enseignement supérieur, on l'a confié un homme qui fera de son mieux. Et vous avez avec vous aussi d'éminents collaborateurs. Je salue mon ami et frère Fadelian. Je souvent, je ne m'arrête pas parce que j'ai que cinq misérables minutes. Vous avez aussi le professeur Maguey et d'autres qui peuvent, sans nul doute, apporter beaucoup au Sénégal, à sa recherche, à son développement et sur tous les plans. Certes, oui aussi, on peut se féliciter que le Sénégal et l'université Cheikh Anta Diop soient la première université de l'Afrique francophone. Mais doit-on trop s'arrêter sur ça L'université Cheikh Anta est la mère des universités francophones. devrait être aujourd'hui au-delà même de le titre de la première puisqu'elle a enfanté toutes les universités de l'Afrique francophone. Et dès le départ, donc, elle portait, par exemple, le Niger n'a eu sa, son université qu'en 1980. Nous avions à l'époque les médecines tropicales dans le monde parmi les centres plus importants de recherche à travers le monde, c'était l'Université Cheikh Diop avec l'Institut Pasteur, l'Université de Dakar. Nous avions l'IFAN Cheikh Diop avec d'éminents professeurs dans les sciences sociales dont les élèves ont essaimé partout, y compris dans les chaires américaines d'études comme les professeurs David Robinson, Yves Persson, qui a écrit sa magistrale thèse sur Samori, Et quand je suis allé à l'IFAN vers les années 2004, il n'en restait malheureusement, Monsieur le ministre, qu'un seul exemplaire. C'est dire la déperdition des travaux importants qui ont été faits ici au Sénégal. Théodore Monod, dont le musée se situe ici, des maîtres éminents ont participé à porter le fronton de l'université sénégalaise à travers le monde. Et aujourd'hui, on aurait dû se réjouir d'être parmi les universités à côté des Colombiens, à côté des Cubains, à côté d'Atlanta, de ceux qui, en médecine tropicale, concourent pour découvrir les vaccins, surtout dans certaines matières. Ce n'est pas malheureusement le cas. On aurait pu se vanter d'être de ceux qui font les recherches dans le riz, puisque nous, sommes, nous avons vocation de produire du riz. de trouver les variétés du riz. Je dis souvent que le Vietnam, quand ils ont, ont décidé de se passer de l'importation des produits vivriers en 1988, l'année suivante, parmi les principaux hommes qui étaient cités dans ce pays, c'était les chercheurs, pas les footballeurs, pas les lutteurs, pas les chanteurs, qui ont aussi Mais le chercheur qui a fait qu'aujourd'hui, Vietnam exporte pour 1500 milliards de francs CFA, voire 2000 milliards de francs CFA de riz. Le temps est compté. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réalisations, mais Monsieur le ministre, je terminerai sur, sur les enfants, les étudiants qui, par, qui m'ont parlé ce matin. Il y en a qui ont abandonné les études. Mamadou Ba, par exemple, de Tienel Sahobé. Daoud du département de Podor. D'autres du département de Tamba. Parce qu'ils ne peuvent pas se trouver à se loger à Dakar. parce qu'ils n'ont pas de bourse. Tout le monde ne peut pas avoir de bourse. Mais quand on a les moyens, effectivement, et je suis d'accord avec ceux qui disent que le HCCT dans ces conditions-là n'est pas indispensable, que le Conseil économique social n'est pas indispensable. Sur ce point, Guy Marissagne a raison. Les fonds politiques pas ne sont pas indispensables. Quand nos enfants abandonnent les études, des abandonnent les études parce qu'ils Merci, chers collègues. Nous donnons la parole euh, à l'honorable député Pape Djibril Fall et notre collègue le président Mamadou Lamine Thiam se prépare. asalaamaaleykum euh, président maa ngi lay nuyu di nuyu les ministres euh, ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal di commencer tey benn plaidoyer boo xam dama koy def par rapport ak. le centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI bi nga xamante ni bien entendu foofu la jànge euh, le budget n'a pas changé depuis plus de quarante ans vingt neuf millions la bon lool bëggoon na comprendre lan moo tax euh, c'est une école d'excellence qui forme aujourd'hui douze nationalités en Afrique ñoom ñooy jànge foofu ñu leen di former euh, muy def liggéey bu am solo euh, dans ce dans ce sens la on nous a reproché à un moment donné et j'étais le président de l'amicale avec l'ancien ministre qui était la Marie, le professeur Mary Teuw Niane il nous avait reproché le, le, la petitesse de l'effectif mu ne effective bi dafa tuuti et que war nañu ko yokk ñu ne ko soo bëggee ñu yokk ko il faut que ñu liggéey sur un plan stratégique de développement et ce plan stratégique de développement a été fait évalué ci benn coût boo xamante ni deux milliards de francs CFA la pour que ñu mën a yokk effectif bi mën a former davantage et surtout li nga xamante ni moom moo gën a am solo mooy CESTI dafa am aussi euh, en intelligence avec le ministère de la communication benn fonds boo xam dañ ko mettroon à leur disposition pour former les journalistes qui pratiquent et qui n'ont pas eu la formation et je pense que le débat boobu am débat avec le ministère de la communication si on veut aider à avoir aussi des ressources humaines dans de qualité dans ce sens-là il faut que ñu replacer le CESTI reconsidérer ko pour mu mën a def liggéey boobu nga xamante ni am na solo et ce boobu aussi on n'a pas de 40 millions en 2022 25 millions la dañ koy wàññi chaque année et là aussi j'interpelle le ministre des finances mais le budget depuis 40 ans c'est 29 millions beneen bi c'est l'ENEA je pense que ENEA je ne sais même pas avec euh, quelle facilité la ñu defar euh, siège bu mag boobu nekk en face de l'ENEA mooy siège wu parti au pouvoir alors que l'ENEA bu ñu xoolee état de délabrement avancé bi nga xamante ni moom la ne alors que l'essentiel de nos grands cadres yi nga xamante ni ñoom ñoo porté aujourd'hui l'administration ñoom ñoo leen formé des bâtiments qui menacent ruine et que aujourd'hui leneen li nga xamante ni moom moo fa gën a métti leneen li nga xamante ni moom moo gën a métti euh, je pense même que le ministre Moustapha Ba foofu la jàngee et li gën a métti <laughs> je pense que war nañ ko gestu ba nga xamante ni dina mën a continuer jouer rôle am que ñi fay génne aussi ñu mën leen utiliser davantage pour mën a dimbali suñu réew pour mu mën a atteindre ses objectifs mais ñu la plupart d'entre eux dañuy génn ce les ONG qui les captent parce que l'État du am ci ñoom benn solution beneen bi ce sont les UVS l'idée elle est bonne mais encore une fois un idéal sans action c'est un renoncement et que dañuy am souvent de très bonnes idées mais on ci ci euh, slogan yi la ñuy toog du ñu ko approfondir l'université Iba ci am de Thiès moi j'étais à Thiès à l'université Iba Der j'ai j'ai trouvé près de 32 étudiants yu transformé la salle télé def ko chambre 32 télé def ko chambre et j'ai pas compris parce que y a des bâtiments qui mais qui tardent à être réceptionnés xaw ma lan moo tax l'ISEP de Thiès maa ngi euh, fa Fadel qui fait un excellent boulot euh, foofu mais davantage il faut les renforcer pour ñu mën a def les écoles de formation qui pullulent dans le pays xam nga école environnement bi ko wër damay wax souvent damay tooñ suma xarit yi jànge UGB ma ne leen l'UGB était l'UGB tant que moo ngi woon fële ci àll ba nga xamante ni dara wëru ko woon bi ñu demee ba kër yi wër ko ñu jaayi suuf si ko wër yépp parce que voisinage ci mi fu ñuy jàngee dafa am solo boo jëlee école yi nekk fi Dakar benn koo xam day ñëw benn Jibril Fall tabax benn R plus 2 am ba ci yàgg mu am envie loué ko kenn ñëw jël ko def ko école salon bi mu transformé ko def ko sal chambre à coucher bi mu def ko salle de classe c'est pas bien et xam ngeen bu baax ne c'est un milieu à assainir mais personne ne fait absolument rien dans ce sens-là je pense que pour que ñu dimbali xale yi par rapport ak fi nga xamante ni foofu la ñu bëgg dem il faut que davantage ñu assainir ce ce kii la beneen bi mooy en matière d'enseignement il n'y a pas de prix il y a un coût les chiffres là qu'on avance rien du tout par rapport à ce que cela peut nous rapporter si vous pensez que l'ignorance que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance loolu la boroom xam-xam bi waxoon bu ñu jàppee ne dafa cher nañu essayer ignorance te ignorance musiba la donc nañu renforcer boroom xam-xam yi ñu gën a dëgëlaat euh, fonk chercheurs yi parce que dans ce pays aussi on a tendance maintenant à piétiner les hommes de savoir de science et de sciences et je pense que c'est inadmissible leneen li mooy école yii ñuy jànge surtout l'école publique l'université publique doit redevenir une réalité tey jii kenn ci yéen kenn ci yéen tey euh, ku ci am as tuut sa doom du jàngee ci suñu université yi ku ci am as tuut sa doom du dugg UVS ku ci am as tuut doo yóbbu doo ko yóbbu Bambey doo ko yóbbu Iba Der Thiam doo ko yóbbu feneen la réalité aussi mooy que ne liñ ko sant mënatu ko et leneen li foofu laay terminer mooy que ñu góorgóorlu fonk xam-xam ngeen jëf Je vous remercie, chers collègues. Nous donnons la parole au président Mamadou Lamine Thiam.